bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maa ngi tàmbali samay kàddu ci suñ borom di wax bismillahi سنت الله وعيد جل لسلمان ينتبه صلى الله عليه وسلم دنيو وداري دمبلنتي القران القصيده نيوب اسلام تموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعيد ام بيتي نيو تاي نك تي وقتاني خسيدك يا ربي بالمصطفى المختار من مدر شفيع أمته في البدء والحضر xaside googu incha allah lañ fas yéene ànd ak wala bayit yooyu lañ fas yéene ànd ak yéen ci jataay bu yaatu jataay bu ubbeeku incha allah nga xam ni xaside gi sëriñ Tuubaa ko wala bayit yi sëriñ Tuubaa def mu bokk ci yi sëñ Muntaxa digle ne nañ ko jàng ci jamono ji nga xam ne mbas dafa am kon xaside googu la ñuy fas ñëw ak yéen ci jataay bu gudd bu yaatu jataay boo xam ne danañ ci euh, incha allah ittinaab duñ ko yàkkamti danañ ci jël sunu temps waaye ñu wax ne ci njëlbeen bala dara nanu xamle xaside yi soog a ñëw nag ci waxtaan wi dëgg-dëgg xasidak wala abyaati yaa rabbi bil mustafa al muxtaari mi mudarrin juróom-ñaari bayit la sëñ bi def ko ci bahrul basit waaye ak ra'i la كون جروب نياري بيد لا يا ربي بالمصطفى المختار بالمدرن شفيع امته في البدء والحضر جروب نياري بيد لا بحر البسيط لا راعي لا بيدو شي ني سي اغرا على جهه لول موي راعي limu baat bi bayit yi juróom ñaari bayit yi limu baat yi mooy 77 juróom ñaar fukk ak juróom ñaar moo tolloog huwa allahu moom yàlla kon sëñ bu ne yaa rabbi mi ngi ci jublu huwa allahu tarjumaan yar nag te mooy wa aleykum salaam wa rahmatullah boo ci wóoral bi suñu xarit mi wa aleykum salaam wa rahmatullah ba ci wa xisnan xasinan min waka it jamin ahda soo ko boolee dix-neuf baat la dix-neuf kalima la moo lay jox tur yàlla bi ñuy wax waahid yàlla mi nga xam ne mooy kenn kon bu sëñ bi ne yaa rabbi rek ci wàllu adat mi ngi jublu yàlla moom yàlla bi nga xam ne mooy kenn mooy waaxit moom la taalal loo xam ne ko yaa rabbi ci wàllu numéro la si taloon nañ ci gën a ñëw kon soo boolee bayit yi limub araf yi muy 77 ak tarjumaan ji limub araf yi muy 19 moo la jox 96 tolloog huwa allahu wahidu huwa allahu wahidu kon yaakaar naa loolu leer na bu dee ci xadadu xaraf yi bu dee ci xadadu xaraf yi mi ngi lay jox trois cent vingt deux araf ñetti téeméeri araf ak ñaar fukk ak ñaar lii nag mooy li mu xaritu bay di li tàmbale ci yaa rabbi bil mustafa al mutaari ba ci bi man laxoo intamaw waltujut bi safi bi safi wa durar trois cent 22 ci ngay xamee xasida gi ni ko sëriñ bi defaree te fekk na ci gis nga cent 322 ñaari tur yàlla yi ñuy wax yaa maanéo moom la yaa maanéo yàlla yow muy aji tere ñaaram la 161 fois 2 égale 322 ci ngay gis sëñ bi xarante gi mu def ba def xarafi bayitu xasida ak yaarab bi mu nekk cent vingt deux nekk ñaari yaa te kat gis nga ñaan gam jox woon ne day faj bépp feebar boo jullee ñaar rakkaar ngay def yaa maanihu 161 wax im nax mi ni haadal marat kon dafa mel ne yaa maanihu yàlla mi aji tere moom lay woo ci biir bayit yi ngir mu dàq feebar bi allahu akbar kon gis ngeen 322 araf la tolloog ñaari yaa maanihu bu dee tarjumaan ji moom itam mi ngi nekk 89 lettre quatre-vingt-neuf lettre moom la kon xasida gi mu ngi noonu juróom-ñaari bayit baharul basir raaya 77 no ci bayit yi tolloog walla tarjumaan gi 19 bayit tolloog walla nga boole 19 plus 77 mu jox la 90 tolloog wallaahu waxidun li mu ab yaade nekk 322 di ñaari maanaam nga xam ne ci wàllu numéro rek sëñ bi da cee maanaam la ci dugal maanaam bi nga xam ne mooy yàlla mi nga xam ne mooy aji tare lépp lu mu bëggul mu am du am كون سو خامي ني خاسيده جي 322 عرف لا تي بيدي 322 نك موي نياري 161 161 موي ماني هو تي غاي خام سيكري بي سيغ بي داف تي خاسيده جي با مانا نيك شفاء من كل دا بو ديمي تي تي بي سيب الحد دجالون دا نفا فك موي واخني بيسوب gaawu ñaar fukki fan ak ñett ci jumaadal ula atum 1343 gàddaay gi tolloog 1924 ci la sëñ bi waxe woon na képp koo xam ni am nga looy jàmm loo yëg sa yaram feebar boo yëg sa yaram képp ku am feebar bu yëg ci yaramam na jàpp julli ñaaraka ci barab bu wéet bu julli ñaaraka sëlmal mu jàng turu wi di yaa maaniu na ko jàng adadu mi atin wa ihda wa sittin mooy téeméer ak juróom-benn fukk ak benn mooy cent soixante et kon limub cent soixante et un mooy motoloog maanihu mu soo noppee nag nga ne wam nax wam na min nii haadal marada wa yaskuru ismal maradi nga ne yàlla yàlla nga ma dàqal yàlla nga ma tereel feebar bi nga tudd tur feebar ba bu dee socc nga ne nga ne danga ma dàqal feebar bi wam na wam na min nii haada sukaama wam naax nii minhu bi fadlika wa juulika wa karamika amin feebar bu mën a doon nga tudd loolo kon bu sëñ bi jëlee yaa rabbi bil Mustafa al Muxtaar yi li mu ab yaat yi mu def ko trois cent vingt-deux lettres di ñaari maani ci ngay xam secret bi mu ci def ngir dàq ngir xasida gi meuna nek shifa an min kulli daa xasida gi nak am ak jagle ci bir xasida sama xam-xam nak dafa bëreegul waye xasida yi nga xamé ne ñom ay bayit lañ ay way lañ ay shihru lañ ah mom la gisagul nak gu tàmbale ci wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon ya rabbi bil Mustafa sëriñ bi bi mu ne bismillahi rahmaani rahim lam ko tàmbali mooy wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu loolu kenn ku ne xam na ne euh, delloob nuyoo la delloob nuyoo la wax nañ ne kenn ci mag ñi moo feebaroon yëgoon tawat ci yaramam bind leetar sëriñ bi di ko ko yëgal ak di sàkku ci moom saafaru sëñ bi ba mu koy tontu nag moo tax mu tàmbalee wa aleykum salaam ndax tontub leetar la daa mel ne ku la nuyu da ko war a delloo nuyoo moo tax deful asalaamualeykum waaye mu wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon mi ngi tàmbalee ci wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gis nga delloog nuyoo loolu rek li ñu ci mën a déggee dafa bari mooy delloog nuyoo. farata la ndax suñu borom moo ne wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha bu ñu leen nuyoo ab nuyoo na ngeen delloo nuyoo bu gëna rafet wala ngeen delloo comme nuyoo bi ñu leen nuyu loolu lay wax وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أرضها كون لول ياكارنا ليرنا غيسنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أرضها آية بو من سورة النساء جروم يتفكر آية أجروم بأن كون سرين بيه lettre ba dañu ko caa wax asalaamualeykum ba àgg sëñ bi di nuyoo nuyoo bu gën a rafet bañ ko nuyu walla mu delloo nuyoo bañ ko joxoon fa xayyoo bi axsan minha loolu mooy anam gi gën a mat waaye aw rudduha nag mooy li nga xam ne mooy waajib ja nga xam ne mooy farata ja delloo nuyoo waajib la aw rudduha googu nag nga delloo kem lam la loolu mooy waajib loo ci dolliwaat nag mooy bi ahsana minha kon loolu nañ ko ci déggee ci sëñ bi tàmbali gi mu tàmbali ci wa aleykum salaam wa ñu xam ne ne raddu salaam raddu salaami waajib jëmmi nuyoo mooy mooy sunna mu akkada nuyoo mooy sunna mu akkada waaye nag delloo nuyoo moom waajib la dafa war loolu dañ ko déggee ci li bi tàmbali wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu atteb nuyoo nag sunnatul mu akkada la sunna su feddli ko la li fekk bàyyi gi nekkul hijr fekkee ne bàyyi gi day doon hijr nag day doon tong moo ko waral day nekk waajib kan lay nekka nag hijr bu fekkee nit ki da tong nit lu ëpp ñetti fan nga tong sa mbokkum jullit ñetti fan lu ko ëpp su boobaa boo dajee ak moom nuyu ko day doon waajib ndax boo ko deful nga def lu a ndax yonent bi moo ne daganul ci benn jullit mu tong mbokkam lu ëpp ñetti fan bu ñu dajee kii wan kii ginnaaw kii wan kii ginnaaw kenn du nuyu sa morom bu ëppee ñetti fan nag dootul dagan mu ne ki gën ci ñoom ñaar ñooñu nag meroo tafante mooy ki njëkk a nuyu morom ja kon gis nga kon nuyu sunna mu akkada la li fekk bàyyi nuyoo gi la ko waral doonul tong su fekkee tong ma ko waral nag subaa nuyu gi day doon waajib kan la bàyyi gi doon tongu mooy boo tongoo sa morom lu ëpp ñetti sa mbokkum nit ëpp ñetti fan sa mbokkum jullit kon gis nga loola mën na koo dégg ci li sëñ bi tàmbali ci wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon delloo nuyoo waajib la delloo nuyoo googu li mu doon waajib doon lu war moo tax sëñ bi ñu ko bind leetar def ci assalaamu aleykum ba muy tontu mu tàmbalee wa aleykum salaam ndax foofu mu indi wa aleykum salaam waajib la ci moom نحن برمانة إثاحيتو بتحية حي بأحسن منها أرضها لولا نيدقتي لولا نيدقتي في متعملك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وتح برام خم خمي يحلن تي كل نيو بني السلام عليكم بقول تنتقل وعليكم السلام ورحمة الله نرجع في فحيو بأحسن منها متح إمام الشوكاني وخ ci tafsiram ba faxajoo bi ahsan minha mooy boo koy tontu nga dolli ca lam la wax masalan ki lay nuyu bu la nee assalaamu aleykum yow boo ko dee tontu ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah ki lay tontu ki lay nuyu lum la jox nang ko nang ko ci dollil loolu la imaamu Sawkaani yi wax waaye nag euh, boo demee ci imaam Malik indi na ci muwattaam nee nag xase àgg ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nag wa rahmatullahi wa su àggee foofa nag ah dootoo doole nag ndax lay sunna ma nga yem ci barakaatu am na ñoo xam ne Ibnu Omar nag daana dolli euh, ni mu ñëwee ci adabal mufrad bayhaq yu jëlee na ci génn na ci ashaabu ci yoon woo xam ne mu ngi jóge ci abdullahi ibnu mu jëlee ci rajulun mu ne benn waay dafa ñëw ci omar ibnu xataab ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa maxfiratuhu nee na mu ne ko ah boo yemoon ci nag wa barakaatu nag mu doy nuyoo foofa la yem ba tey ibnul imran ibnul xasin radiyallahu anhuma nee na benn waaye dafa ñëw jëlee nañ ci imran ibnul xasin radiyallahu anhuma mu ne benn waaye dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko assalaamu aleykum yonent bi tontu ko delloo ko nuyoo daal di waaja daal di toog yonent bi ne ko am nga fukki tiyaaba fa xaala nabi sallallahu alayhi wa sallam xasrun yaani xasu xasanaatin beneen waaye daal di ñëw nuyu yonent bi ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullah yonent bi delloo ko nuyu bi waa ji daal di toog yonent bi ne ko am nga instruona maanaam am nga ñaar fukki tiyaaba beneen waaye ñëwaat daal di nuyoo daal di ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuyu yonent bi yonent bi delloo ko nuyoo mu toog yonent bi ne ko am nga fanweeri tiyaaba lii Abu Daawuda nettali na ko ak Tirmisi yu mu ne hadiisun hasanun kon delloo nuyoo waajib la waajib la nga xam ni boo ko bàyyee rek bàyyi nga lu war jëmmi nuyoo nag moom sunnatun mu akkada la waaye nag boo nuyoo mbooloo ne leen assalaamu aleykum wa rahmatullah bu la ci kenn tontoo doy dana dana doy wulif ñi ca des ba tey ñu ne nuyoo nii la war a demee xale moo war a nuyu mag ki war moo war a nuyu kuy dox kiy dox moo war a nuyu ki toog ñu néew ñoo gën a war a nuyu ñu bari masalan ñaar bu ñu doon dox dajeek ñett ñaar yooyu ñoo war a nuyu ñetti ñooñu ñaari nit buñ dee dox ki am fanweeri at ki am ñeent fukki at ki am ñeent ki am fanweeri at yi moo war a nuyu njëkk a nuyu ki am fanweeri at yi ñaar buñ ki war oto wala lu mën a war bu dajee ki dox ki war moom lañu war a moo war a njëkk a nuyoo waaye ñii nga xam ne ñoom lañu war nag buñ ko deful du tee yow nga def nga nuyu nga nuyu leen kon delloo nuyoo mi ngi noonu waajib la lu munta ñàkk la lu munta ñàkk la boo ko deful am ci bàkkaar kon moo tax sëñ bi xam la la moo tax mu ne wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ bi doon la def indi fofu waaw bu xat fi te mooy wa alaykum salaam léeg-léeg ngay si mbindam muy tontu ab nuyoo ne fa alaykum salaam loolu yëpp ku liir ay mbindam da nga ko ci gis kon xasida ak yaa rabbi Mustafa al Muxtaar mi ngi tàmbalee wa alaykum salaam li tax mu tàmbalee ko mooy sëriñ bi dafa am ko bindoon ab lettre def ci asalaamu alaykum delloo nuyoo boobu doon waajib ci moom sëñ bi xam ne waajib la ci moom moo tax mu tontu mu tàmbali wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu léegi nag mu def leneen mu def leneen wax nañ ne baat bi ñu tàmm mu desaat yeneen wax te mooy booy nuyu kenn ndax da nga naan assalaamu alayka wala da nga naan ko assalaamu alaykum ñu wax ne bu fekkee da ngay nuyu kenn mën ngaa wax alayka bil ifraadi assalaamu alayka soo dee nuyu mbooloo mën ngaa wax assalaamu alaykum waye amna ci lenn ci borom xam-xam neenañ soy nuyu kenn wala ngay nuyu mbolo da ngay wax assalamu alaykum ndax ñu nit ku ne amna ñaari malaaka yu nekk ak mom anil yamini wa ani simali qaid maa yalfisu min xawlin ila ladayhi raqibun wa xatid kon boo ne asalaamualeykum te fekk kenn la yaa ngi ci jublu nuyu kooku ngay nuyu tam nekk nit na yow waaye nuyu waale malaaka yi ànd ak moom loolu lañu wax kon lu ci ne wér na lu ci ne wér na loolu ñu diggee ci kon sëñ bi mën naa am ka tontu ne ko wa aleykum salaam dacaa jubu tontu ko ak ñooñu ànd ak moom mooy malaaka yooyu ànd ak ñoom wa salaam yi kon loolu lañ koy déggee kon mi ngi noonu waaye mu def wa salaam indi ca alif ak laam ji wax naa la sànq waaw gi waaw xatu fa la léegi nuyoo def ci alif laam muy assalaamu aleykum wala assalaamu aleyka moo gën a mat nga def salaamun aleyka ndax alif ak laam googu mm, moo gën a mat ndax da koy def maxrifa da koy def maxrifa moo gën a mat bu nekkee nakira bu fekkee ci ñun doomu aadama la waaye boo dee setante alxaan nuyoo yu jógee ci suñu borom yépp moom nakira la loolu nag beneen mbir la moo tax bu demee noonu foofu bëgguma ci xóotal muy jël sunu temps lu bari waaye bu ngeen xoolee alxaan sala nuyoo yu jógee yépp ci suñu borom nakira la ko def loolu nag da koy jox beneen maanaa bu gën a yaatu bu ëpp doole sunu nuyoo bi kon waaleykum salaam mi ngi noonu ñu ñëw ci la ci des kon ñu ngi ci xasiid ak yaa rabbi bil Mustafa al Muxtaar yi doon leeral lu tax mu tàmbalee waaleykum salaam danañ ko bind lettre te lettre ba am asalaamu aleykum te ni ko sëñ bi waxee feneen boo demee ci maj moxa bi amna fa ben denkané bu sëñ bi bindé euh bu sëñ bi tambalé alhamdulillahi alqail fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la taalamuun wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlana muhammadin alqail inna li jawaabi alkitaabi xaqan ka raddi salaami ka mais nag tontu leetar xàq la ni ki nga xamee ne tontu nuyoo tamit warteef la kon gis nga kon sëñ bi ñu ko bindee leetar rek tontu googu war xàq la ci ka ko bind waaye delloo ne ko asalaamaaleykum ci biir liggéey ba delloo ko nuyoo ne ko waaleykum salaam itam moom itam xàq la moo tax sëñ bi tàmbalee ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi تعالى وبركاته قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لا نفكو السلام ألف أقلام قبو موغن لكن ننيو تي باتب السلام قبو رك نمتخي فوفتي يا ربي بالمصحى المختار يعني السلام دي اسم من أسماء الله تعالى تور لا تور يالله بفكر انكو وحتي تايا ولا غيركو وحتي بوينو عبد الله te loolu mooy adduwaaw lahu bil xifsi wal inaayati mooy da ngay ñaanal ki ngay nuyu yàlla sàmm ko yàlla aar ko yàlla wattu ko yàlla musal ko ci bépp feebar yi yàlla musal ko ci bépp gàkk-gàkk yi moo tax imaamu Nawawi wax ci sarxu muslim ne wax gi ñuy wax asalaamu aleykum ci julli wala ci taaye asalaamu aleyna wa ala ibadat salina maanaa bi mooy muslu ci yàlla ak aaru ci yàlla ndax fa inna salaama ismun lahu subhanahu wa taala maanaam salaam tur la ci turu suñ borom bi taqdiruhu nag lañ koy tolal mooy allahu aleykum xafisun wa kafilun yàlla sàmm leen wattu wa maanaahu kon boo ne boo ne nit wa aleykum salaam wala asalaamu aleykum maanaa googu ci asalaam gi maanaa gi mooy asalaamatu wa najaatu lakum jàmm mucc yàlla nekk ci moo tax borom sarxul mumtix nee na soo ne nit ki assalaamu aleyka li nga nam foofu salaam boobu tur la ci tur yàlla ngir yonte moo ne inna allaha huwa salaamu yàlla kat mooy assalaam wala sunu borom li mu wax ci mujjantalu suratu xatri laa ilaaha illa huwa malikul quddus salaamu bu fekkee nag asalaama gi dañ koo jàppee mu doon tur yàlla maxnaa bi mooy kon yàlla kat na la wat yàlla na la sàmm yàlla na la aar dafa mel dañ la alayka allah ay yàlla na la sàmm yàlla na la yàlla na na ittewoo say mbir baatu asalaam gi bu fekkee ne ismun min asmaillaahi la maxnaa boogu lay la am waaye am nañu wax ne asalaamu nag السلام قلت نكتي السلام عليكم ولو عليكم السلام اسم مصدر لا تي سلامة بمعنى التسليم نكو سن بروم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة الاحزاب آية جنوم فك اك جنوم بن بودي نك باتو السلام لغي تور يالا واي مصدر مصدر لا تي سلامة loolu kon mooy maxnaa bi mooy boo ne nit ki wa yaa ngi koy delloo nuyoo di ko ñaanal yàlla musal ko ci bépp gàkk-gàkk moom ba mu la ne asalaamaaleykum ñaanal la yàlla musal la ci bépp gàkk-gàkk yaa ngi koy delloo ci yow di ko yàlla musal ko ci bépp boo demee ci sarxu riyaadu saalihin demee ci sarxu riyaadu saalihin mooy tam moo tax mu baatu baatub asalaam gi ci waaleykum salaam wala asalaamualeykum maanaa bi mooy addu'a bi salaamati min kulli aafatin ñaanal nit ki mu mucc ki ngay mucc ci bépp gàkk-gàkk soo dee benn waaye julli ne asalaamualeykum nga nekk ko waaleykum salaam loolu maxnaa bi mooy yaa ngi koy ñaanal yàlla musul ko ci bépp gàkk-gàkk yaa ngi koy ñaanal yàlla musul ko ci feebar yi yaa ngi koy ñaanal yàlla musul ko ci ndof yaa ngi koy ñaanal yàlla musul ci mboolem ayib yaa ngi koy ñaanal yàlla musul ko ci mboolem mooy yàlla yi yaa ngi yàlla musul ko ci mboolem am naa dul kulóob yaa yàlla musul ko ci sawara kon gis nga baatu صلاة بفي لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة معناه موي ياغي ñaanal ki ngay nuyu yalla musul ko ci bepp gak gak lepp rek lu baxul lepp lu bon sun borom musul ko ci kon gis nga wa alaykum salaam maanaa bi mooy nga ñaanal nit ki yàlla musal ko ci bépp lu ñaaw ki naan ko wa alaykum salaam yaa ngi koy ñaanal di ko delloo nuyoo ne ko ginnaaw bi ne asalaamaaleykum ñaanal la ñaanal ko yàlla na la yàlla musal ci sa diine yàlla na la yàlla musal ci sa sa àdduna sa bopp sa njaboot sa kër sa alal maanaam yaa ngi ko ci bépp mbir bu jublu ci bu ñuy nuyoo lii jublu ci booy delloo nuyoo ci waaleykum salaam maanaam yaa ngi koy ñaanal suñu borom musal ko ci bépp gàkk-gàkk musal ko ci balaa musal ko ci bépp. Euh, lu ñaaw lépp lu bon lii mooy maanaam assalaam gi ànd ak nag maa yatadammanahu min attahiyati wa tarhibi wal inbisaati ila saxsi allahu akbar moo tax lii ñu lislaam jox te mooy nuyoo bi assalaamu alaykum wa alaykum salaam dese na ñoo xam ne ci dëgg dëgg la ci nekk bu nu xamoon li muy wund fexe ba loolu tasaaroo ci àdduna bi ñu di ko wax di ko jëfe di ko comporté woo jàmm rek moy am ci àdduna bi kenn du agressé kenn kenn du def kenn lu bon ndax kenn ko xëy nako assalamu alaykum tamit deug ci yow yow do to ko lor ndax yang koy ñaanal yàlla musal ko kon wa alaykum assalam gi sëñ bi mom la tambalé mi ngi noonu waye malheureusement nañ xol tay li ñu nuyo nuyoo alaykum la ñuy wax de bo ak ci ni nit alaykum lolu mo yàlla bu am jàmm mu ne malaykum salam yow tam yàlla bu am jàmm wa kenn ko ne xëy ki nan sa borom yàlla nga am yàlla bu am jàmm ki nan yàlla nga bu am jàmm fu jàmm mun di jëlee fu jàmm fu ñu jëlee jàmm kon nañ jàng nañ jàngal xale yi nuyoo assalaamu aleykum wa aleykum salaam waaye du salaamaaleykum du maaleykum salaam loolu rek jar naa bàyyi xel kon sëñ bi mi ko tàmbalee ci wa aleykum salaam wax naa ne waaw gi waawul la wax la lu sëñ bi tàmbalee wa aleykum salaam indil la baatub salaam gi lu muy wund léegi nag nañ ñëw ci baatub rahmatullahi gi ba tey ñoo ngi ci xasiid rek yaa rabbi bil mustafa al muxtaari min mudarrin وخنا دنج ايدنا بري دنج جيل سونو تا مانكي وعليكم السلام ورحمه الله رك بوركوا سن بي انديكو اك لوموي ووندو واخنا لا سن بي دنج كو بينول اب لتر تونتو لتر بي حق لا واي بونتي بيندي نلا السلام عليكم باي تونتو لتر بي تيميت ونيو عليكم السلام واجب لا تا سن موم دو باي واجب بوك موتاخ موتام لي وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته baatu bu raxmati googu nag li wundu bari na dana wundu njegal dana wundu wërsëg dana wundu sax taw ci loxatul qur'an yermane ñewantal as alaykum salaam wa rahmatullah kon dello ab nuyo la assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh momitam nuyo la boy nuyu ay nit wala ngay jéxal julli ci lay ñëw wala booy tàggu nit rahmatullahi nag mooy ihsaanuhu wa inaamuhu aw saabuhu lu ci ne da koy firi ak rafetalam xéewalam ak tuyaabam wa rahmati wasihat kullu shay'in gis nga baatub rahma euh, ñëw na ci alxaan lu bare bare baatub rahma ak fexelu yee ci ñëw ñëw na ci alxuraan lu mat euh, ay yoon yu bare bare deux ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett bu dee yete xaroo nag dana mat trois cent trente boo ci boolul bisimilah rahmaani bi nga xam ne mat na cent quatorze boo ci boolul kon baatu ba rahma mi ngi noonu ci waaleykum salaam wa rahmatullahi arrahmatu bu jigee ci yàlla inaamun wa ifdaalun la xéewal la ak ngëneel bu dee ci doomu aadama nag riqatun wa taatufun baatub arrahmatu ñëw na ci alxuraan wax naa ko ci 268 euh, barab bu de boo ci boolee mustaqaatuhu ñëw na ci trois 330 barab te boole woo ci nag bisimilah rahmaani rahiim nga xam ne mën na ci mën na 114 ci alxuraan kon waaye nag li ëpp lim ci alxuraan dafa ñëw bi siixatil ismi nekk suñu borom li mu wax ne innahu huwa tawaabu rahim suuratu baqara 37e aaya li ci ëpp ci siixatul ismu la ñëw waaye ñëw na ci fukki barab ak ñeent bi siixatal fixli nekk suñu borom li mu wax xaalu la in lam yarhamna rabbuna laxaraaf baatub arrahma nag ci alxuraan dafay tegtale iddati maanin mën nañ cee tudd fukki maxnaa ak ñaar ci baatub arrahma ci li mu ñëw ci alxuraan نمتي وعليكم السلام ورحمة الله في قصيدة يا ربي بالمصطفى المختاري من مزرين الرحمة دي نيوتي القرآن نك ملو تي ملو سن بروم ميغا خامني ماغنا تاكاوي دي سخالال لا يايو تي موم اك ماغايام تي ملو وو دي واخ ورحمتي وصيحة كل سئين لول مانن كو تي ديغي تي سورة الأحراف آية 106 ak wa rabbukal xaniyu sur rahmati alham ay 133 kon baatub rahma gii nga xam ne sifa la ci meraw suñ boroom mu ëpp lum ñëw lu mu rott ci alquranul karim bu rahma ka sifatun lillahi subhanahu wa taala hiya al aksaru wurudan fi alquranil karim ñaareel tur wi mooy baatub ar rahma day ñëw ci alquran بمعنى الجنة لولا دنج كو ديغي سي واخ يوسن بروم واخني اولئك يرجون رحمه الله اي يتمعون ان يرحمهم الله نيوني كات دانيي خيميم يالا يرم لين فيدخلهم جنته بفضل رحمه الله دوغلين ادنا سي غنيلو يرماني غوغو مولين يرم كون بات الرحمه دنا فيري القران الجنه نيتل با بات الرحمه سي القران دنا فيري بمعنى النبوه لولا لسن برام دي وخ والله يختص برحمته من يشاء بقرة آية 105 علي ابن أبي طالب رضي الله عنه نينا سن برام وخ جيم وخ يختص برحمته أي بنبوته يلا موي جقلال أك نبوهم كوكو نيخ من خص بها محمدا صلى الله عليه وسلم لولو غاي فك لو اوب تي ا لي غنا باري تي تفسير baatu ba raxma ci alquran ci aaya bi ñu furé ko annubuwa loolu tamit ngay fekk ci wa atani rahmatan min indihi ay nubuwatan wa risalatan hud ayab 28 rahma ñentel ba day ñëw bi mahna alquran baatu ba raxma ci alquran dana fi alquran xul bi fadlillahi wa bi raxmatihi fa bi dalika fal yunus ayes juróom fukk ak juróom ñett baatub ar xol bi fadlillahi wa bi rahmatihi googu rahmati googu wax nañ ne mooy alxuraan loolu lañ jële ci daxaak ak xasan ak mujaahid ak xataada juróomeel ba baatub ar rahma dana ñëw ci alxuraan di firi ab taw bokk na ci yooyu lu suñu boroom wax ne wa huwa alladi yursilu bay na bayna yaday rahmati الحراف آية جروم فك أجروم نار التبريو نينا سنبرم تدقم تدق رحمته في من تجبل المطر طوبة أقوه جمع فانفر إلى آثار رحمة الله بطي رحمة الله بابو بمحنى المطر فوف جروم بين الباء الرحمة دنيا بمحنى النحمة والرزق wërsëg ak xéewal juróom benneel ba ar raxma dana ñëw bi max naa nicma war rifq xéewal ak wërsëg bokk na ci yooyu suñu borom wax gi mu wax awa araadani bi rahmatin surtout zumar aaya fanweer ak juróom-ñett sawkaani nee na ar raxmatu googu bi raxmatin googu mooy an nicmatu war risq ci anam googu la suñu borom waxee ba tey xul lawa antum تملكون خزائن رحمة ربية سورة الإسراء آية فك baydaa yu nee na xasa inu risqihi wa sairu niamihi moom la jublu ci xasa inu rahmati rabbiya ci loolu lay dugg maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fatir surat fatir min rahmatin googu an nicmatu wa risq lay tegtale juróom-ñaareel ba baatub ar rahma dana ñëw ci alquran di tegtale an nasru te mooy ndimbal بكون تلول سن بروم واخ گيم واخني خول من الذي يحزمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه سوره الاحزاب رحمه غوغو اي خيرا ونصرا وعافيه نون لاكو امام الخطبي فيري بنور نيمبل اك جام wa xam wolé musal ci yalla bu démé ci yow lu bon wala mu nam ci yow nak nimbal ak yiw ak juróom-ñetteel ba baatu rahma dana ñëw ci alxuraan bi max na al maxfiratu wal afu loolu njëggal ak baale loolu mën nañ caa indi misaal sunu boroom wax gi mu wax ne kataba rabbukum ala nafsihi rahma juróom fukki aayal ak ñeent namm ci sunu borom mooy nangu tuub ci jaamam yi bokk ci loolu wax gi sun borom wax ne xul yaa cibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru sunuba jamian rahmatullahi googu mooy maxfiratuhu wa afwuhu njëggalam ak baalam kon gis nga baatub rahma li muy firi ci alxuraan bari na li muy firi ci loxasul arab bari na baatub rahma dana ñëw ci alxuraan di firi al atfu wal mawad cofeel ak ñëwantal bokk na ci loolu wax gi sunu borom wax ci suur fati aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent muhammadu rasulullahi walladina amanu ba ni aaya jeex ba àgg ci roxama u baynahum baxaw yu nee na roxama baynahum ay mutaatifuna mutawaddoona dañoo am cofalante dañoo bëggante kon gis nga baatu ba raxma foofu loolay firi mutawaddoona baaduhum baada loolu mën nañ cee joxe benn misaal suñu borom wax gi mu wax ne wa jaalna fi xulubi alladina tabauhu raxfatan raxfatan wa rahmatan suratul xadid aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar ay mawaddatan fukkeel ba baatub arrahma dana ñëw bi maxnaa al ismatu mucc loolu mën nañ cee joxe misaal suñu borom wax gi mu wax ne inna nafsa la amaaratun bi suuyi إلا ما رحم ربي سورة يوسف آية جروم فك أغنيت ابن كثير نينا سن بردو عن بكان كد دي ديكل لبن إلا ما رحم ربي ندري إلا من حسم الله ندري متى بامدس يالا مسل كون فافو غيس نبات الرحمه بي بخنا العصمه فكيل با اك بن باتو الرحمه دنا فيري بي بخنا الطواب مي فيري يول تيابو bokk ci loolu inna rahmatallahi xaribun min al musinina yoolub suñu boroom jege na rafetal laxaraaf aaya juróom fukk ak juróom benn xaala sahid ibnu jabir ar rahmatu hahuna aswab sahid ibnu jabir nee na yërmaane gi fii baatu boo xam gi fii asawab lay firi fukkeel ba ak ñaar mooy ar rahmatu dana ñëw bi ma xam naa ijaabatu dana ñëw bi ma xam naa ijaabatu ñaan loolu mën nañ cee joxe misaal sun borom wax gi mu wax ne kaaf xeen yi ayn saat dikru rahmat rabbika abadahu zakariya suratu mariama sawkaani nee na euh, rahmat rabbika boobu mooy yax ni ijaabatuhu iyahu xiina bi mu ñaanee sun borom ñaan ko doom sun borom may ko doom jooju wuyu ñaanam googu mooy rahmatu rabbiya kon gis nga baatu rahmatu ci wa aleykum salaam wa rahmatullahi gisañ bi wax ci يا ربي بنص المطاري من انت تنكين كون بعتب الرحمه ميغي بوكو سي بعد ييغا خامني بعد يو ياتو واخ بعد يو خامني دا ام سوموريا بعد ييغا خامني ليپ لو باخ ليپ نجارين ليپ لو خامني داي دالو نيت كي سي ادنام ديكو جارين سي ادنام ديكو جارين سي الاخرام باتب رحمه الله غوغو داي دوغ فوف كون وعليكم السلام ورحمه الله تعالى لا سوجي الله دوجي نيو ناخ بو نجي دون نيو مانا في فران موك تعالى دي كون ني نيو سي بركاتو فو ريك جيخال فوفو بي ني وقت تاي تي جتاي بي كون نيو نانتي خسير يا ربي المصطفى المختار نيو نانتي وعليكم السلام لوتاخ سنج بي ديفكو تامل كو نونو نيو نانتي باتو السلام جي جيو نانتي واو جي جيو نانتي ورحمتو جي جيخانتي نك سن بنو تاي بي سي waaw sunu borom moo moo wax ne fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan albarakatu nag mooy annama u wa siyaadatu wa saadatu dolliku développé wu bonheur albarakatu fil asli kasratul xayri wa saiduhu bonheur bi dolliku yokk barakatu nag mën naa nekk xisiya mën naa nekk maanawiya mën naa nekk xaqliya te lu mu ci doon mooy yiwu bari te sax yaa nuhu ihbit bi salaam minna wa barakaatin alayka loolu suñu borom waxoon nuhin de barke dana am ci barab yi dana am ci jamono yi dana am ci jëmm yi subhaana la si asra bi xabdi leneen min al masjid al haram ila al masjid al aqsa si baarak naa gis nga baarak naa xaw la foo falama atiha nuuriya ba àgg ci fil baqaati mubarakati min asajarati في البقعة المباركة من الشجرة ak as sayratul mubarakati saytoon sax suñu borom da koy mel melal ci alxaan ne sayratul mubaraka la inna ansalnaahu fii laylatin mubarakatin moom itam bu dee ci jamono yi kon gis nga baatub albarakaat baatub barakaat dafa mi ngi noonu lu kenn xamul la fu mu yem ndax jamu la ko def bu dee raxma mufrad la ko def waaye barakaatu gis nga pluriel la ko def mu gën a mu gën a mu gën a yaatu barke kon su duggee ci lu bari kenn du xam fu mu ne su duggee ci lu néew ñëpp yëg ko kon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu ngi noonu kon li ma la waxoon danañ jël sunu temps ci xasida gi tàmbali ko fa bis tey sunu jotaay bi yëpp daanaka mi ngi yem ci présenté xasida gi wax la ne xasida gi juróom-ñaari euh, bayit la di 77 baat tolloog ci boolee tarjumaan ji tarjumaan ji 19 xara baat la euh, tolloog waaxidu waaxidu bi nga xam ne turu yàlla la te mooy kenn ki baat yi li mu euh, li mu bëy di baat yi 77 moo tolloo huwa allaahu bu dee tarjumaan ji baat yi 19 la tolloo waaxidu soo boolee 77 plus 19 mu jox la 96 moo tolloo huwa allaahu waaxidun kon ba mu ne yaa rabbi rek yàlla moom muy woo mooy yàlla mi nga xam ne mooy kenn mooy unique wax naa ne li mu arifi bay di 322 moom la tolloog yaamaani hu ñaari yoon moo tax secret dàq feebar nekk ci yaa rabbi bil Mustafa al Muxtaar yi tarjumaan ji arab bi arafam quatre-vingt-neuf la kon xasida yaa rabbi bil Mustafa al Muxtaar yi mi ngi noonu jataay bi di ñëw nag ñu ñëw ci fahaakum haadihi l abyaata shifaan min kulli daa wa xisnan xasinan min makaa'il jamil ahdaa kon ñoo ngi jox ñëpp daje jataay bi di ñëw di jéglu ñëpp di baal ak ñëpp di wax wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xasidat yaa rabbi mi ngi noonu mën naa faj lépp lu mën a doon lépp lu mën a doon ba ci cancer sax mën na ko faj mi ngi des ci sunu gëm-gëm ak sunu pësteef ak sunu dëggal kon ñoo ngi doon ngànt ñëpp wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu